acte bi Cheikh Tidiane Ndiaye def ci turu xalaat santé da koo def rek juste pour wane bon benn bon exemple bon exemple bi mooy dañ ciy lancer un appel ci parent d'élèves yi di ci lancé un appel ci dëkkandoo yi nga xam ne ñoom ñoo tiim école bi xam ne école bi suñu école la suñuy doom ñoo ciy jànge ak suñuy jarbaat ak suñu njaboot ñu xam ne lépp loo xam ne luy def ci kaaraangay élèves yi ak luy dox ci seen jàppandal ci seenum jàng ak lépp loo xam ne luy mën a jàppale yusulum la pour yi nekk dans loolu mooy rôle parent d'élève ci école bi ba tax na ñi nga xam ne ñi ngi jàkkaarloog école bi ak ñu dëkk ci biir koñ bi euh, ñi ngi leen di lancer un appel à que ñuy bàyyi xel école bi te xam ne école bi lu jar a jàppale la. nuyu vraiment population Mbacké surtout population Gaawaat euh, di jiital ci bi vraiment directeur Youssou Loum mi nga xam ne moom lañ fekk ni tey ci école bi euh, ak ñun ñi nga xam ne ñooy waa classe santé nga xam ne dëgg yàlla yëngu wuñ ci. maanaam askan wi ak lépp loo xam ne ni moom la askan wi def ñun ñëpp àndoon tey jii ñëwoon fii ci école soxna Xari Penda ci loo xam ne nii du politique mooy comme ni ma ko waxee léegi sëñ Youssou wala ngir dara lii maanaam mën naa ne sax du dara mais dafa am école boo xam ne nii dafa nekk te nekk dëkk bu ñuy wax Opi Centre Parade joxoon ma ay bagages ñoom na ma boo demee ngeen jox ko ak e-, ya nga xam ne ñoo fa nekk alors bi ma ko waxee nag man wax dëgg yàlla sax ah lii bunt la boo xam ne ni da nga ci am relation ak ñi nga xam ne ni ñooñu jox matériel yi nga xam ne ëllëg si biir da nga mën a am ak ñoom correspondant moo taxoon nag ma ne ma indi ko nii ak euh, matériel yi nga xam ne ni mooy yu handicapé yi parce que am na ci élèves yoo xam ne ni aussi yaakaar na ne am na ci handicapé moo taxoon ñu indi matériel bi pour jëbal ko école bi nga xam ne ni mooy école soxna xari penda pour ñaan yàlla maanaam relation bi nga xam ne ni moom lañ bëgg ci entre école primaire bi nga xam ne ni moo nekk Okiile euh, centre Palaat ci France maanaam am relation ak école bi nga xam ne mooy Soxna Xari Penda loolu moo taxoon ñu ñëw fii pour indi lii euh, école bi ak euh, hôpital bi mën naa ne daanaka benn la parce que lii c'est la première fois ñu def ko mais médicament yi nga xam ne indi nañ ko école bi ak matériel yi association bi ma leen wooyee ndax xam nañ ne ci askan wi la jëm si te xam nañ ne population bi ñoo tax ñu di ko def daraay politique taxu ci kon nag moo mooy loo xam ne acte la boo xam ne c'est la première fois ñu am yaakaar ne ëllëg xëy na liy ñëwaat mooy ëpp fuuf li nga xam ne ni moom lañ indiwoon fii ndem soom na yàlla jërëjëf je voudrais d'abord remercier euh, l'association Xalaat Santé de l'initiative qu'ils ont à appuyer de façon symbolique notre école Soxna Xari Fall nous nous mesurons le geste et nous le remercions sans assez. C'est pour dire encore une fois que ce que la ligne directrice du ministère de l'Éducation nationale. Il a pas longtemps que les gens ont dit qu'il faut que l'école des partenaires. C'est le partenariat qui peut aider l'État à développer certaines activités au niveau des investir pour Mais néanmoins, les partenaires sociaux peuvent aider les établissements scolaires à régler beaucoup de problèmes. C'est dans ce sens-là que nous rendons cet acte-là que nous venons de faire. Et vraiment, c'est un symbolique, mais qui a une grande importance. Quel que soit le nombre, le fait d'y penser, certains, en allant en Europe, ils pensent amener l'argent pour satisfaire les besoins de leur famille. Mais aujourd'hui, vous êtes allés, pour chercher les manques des populations de Mbacké, voire de la région, et dans l'offrir des opportunités pour s'en sortir, nous pouvons comprendre. Pour dire encore une fois, notre invite, c'est à l'endroit des autres fils de Mbacké, de tirer exemple à l'endroit de Cher, en cherchant des partenaires qui peuvent aider, soit les établissements scolaires, mais aussi bien sanitaires et les autres domaines qui poussent le marché vers la croissance. Moi, je crois que nous appuyer en matériel tel que les fournitures et du matériel destiné aux handicaps, vraiment, c'est d'une très grande importance. Encore une fois, au nom de toute l'équipe, nous en remercions, surtout au nom de l'inspecteur de l'éducation, en salle d'éducation de Marc, M. Diagaba, et nous ferons copie de ce qui a été fait Nous vous remercions et au nom même de l'Éducation nationale, nous vous remercions vraiment de cette Pour dire encore une fois que nous faisions de telle sorte que ce que vous avez offert soit, bien transmis aux élèves qui aujourd'hui sont des cas sociaux qui auront un bénéficier pour, pour, leur, pour, éducation. Donc c'est dans ce sens que nous remercions M. Mangira qui est directeur d'école, la Hilo, pour leur dire que l'école Sohna Hari Penda est en phase d'établir un jumelage entre leur école pour leur permettre d'établir des correspondances scolaires qui leur permettraient de connaître leurs coutumes et de découvrir leur monde, aussi que pour nous-mêmes, et plus tard de faire des voyages d'échange qui vont entrer dans l'éducation de nos enfants et de, renforcer nos performances. En, encore une fois, nous le tendons la main pour que cette collaboration-là, que ce dimanche soit effective.